asalaamaaleykum wa warahmatula téléspectateur Equivox TV yi ak internetu Lit TV yi ñu ngi leen di nuy di leen ziar tey nag su ngeen gisee jotaay bi li ko waral mooy dafa am koo xam ne nii yaakaar naa ne gis ngeen ko léegi muy dugg si bu ngeen ko gisee mooy baaba jaw bu gël Tapée baaba jaw bu Médina baaba jaw tamit bu Thiam Production tey nag ah mu ne woon daal xam nga bëgg na wax ak sénégalais yi bëgg na tamit wax ak ñi nga xam ne ni ñoom ñooy monde làmb parce que olof ak wax ku yokkul yaa wàññi te ku xam na ne daaw saison bi bi muy tëj biñ ne suba la maanaam bi ñuy corona bi am maanaam ñuy jël décret président di ko def di tëj làmb ji moom moo waroon tëgg soq ak gàmmu géey te defe naa ne tamit fi mu nekk nii nañ làmb ji ubbi na mois de mars defe naa premier mars ci la war a ubbi a bëre moo tax nag tey ñu ñëw tamit seet si ko ñuy nuyu estafam bi nga xam ne ñoom lañu fekk si fii ku mel ni sama soppe bi am di Moustapha ah maa ngi koy bëggee di nuyu Aba ak ki nga xam ne moom papa ndaw waa ah, du papa la ah ak ah, ak Issa <laughs> waaw le le parisien ak tamit di nuyu waa métropole restaurant bi nga xam ne nii xam naa ne fii ci Gueule Tapée moom lépp loo bëgg ci lu neex ak lu set lu sel boo ñëwee métropole fii ci Gueule Tapée moom di nga ko fi am moom macha muy restaurant bu zik bu tege ci aw yoon euh, Aba. am di wala ma ne sax ma ci wax rek baax na parce ah. maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw Abdoulaye Bass maa lay fay xam nga du nuyu ñoom Lamine du sama gars yi ma nekkal mel ni Papa Ndaw am di. Aba Isaafa Diaye xam nga di nuyu staff sama staff yëpp di nuyu tamit sama gaa yi ñu may liggéeyandoo xam nga ñoom Youssou Thiam ñoom Iba ñoom Cheikh ñoom Papa ñoom Daouda xam nga di ñëpp xam nga ñëpp daal du nuyu tamit moom moteur kii ñu bi xam nga madame Fall doon solo si baax doon solo si tamit nangol liggéey doon jàmbaar xam ay lekk lu baax lay lay jaay ñëpp nag madame Fall ñu koy nuyuwaat borom métropole waaye tamit muy nuyu tey ki ma takkal lunette sama seex bi Lamine moo muy jëndal lunette yi démb comme yi muy takk teg teg moom la ma jëndal jox ma ko macha allah maa ngi koy bëggee Lamine Seck bu Lutte TV borom looro loo wax ci loolu. non Lamine moom boom baax la et puis yéen ñaan ñëpp boom baax la dañuy ñaan yàlla seen ànd bi xam nga cat bañ si dugg quoi xam nga et puis gars yi itam bàyyi leen ak seen solo quoi ok. kon yàlla nañu yàlla musal ci cat mais Abba wala boog Baba. lépp benn lépp benn la defe naa ne ñu ngi ci mois de février tey la 24 weer wi presque dee na yaa ngi dégg heure bi daaw presque la lamb tëjoon muy mat un an ferme li ko waraloon mooy coronavirus. yow nga nekk promoteur boo xam ne bi Assane Ndiaye tëggee samedi. yow yaa waroon tëgg bët set dimanche muy soq ak gàmmu gi ak combat ca aju woon ñoom maam Mor a nga ca woon ñoom euh, Mbañi Kayre ñoom Jacob Balde yàqu-yàqu boobu bi mu amee ba tey fi ñu toll ni mu mat at noo ko dundee. waaw sant yàlla bu wér ndax ñun ay jaam lan te suñu yàlla tegee natu xam nga doon ay jullit nga dañ koy nangu xam nga waaye comme ba suma yàgg di wax rek moom sama lépp dama ko teg si loxo yàlla waaw na trop mais xam nga sant bu wér ci diggante bi su ma juumulee am na lu fi am ci entre promoteurs yi toog ngeen fii ànd ah, Euh, muñ yëkkati sax su ma jubul seen alal yóbbu ko waa ministère de la santé participer ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex corona bi en tant que ay euh, promoteur mais itam yaakaar naa bi ngeen ci jógee bopp ba tey lan la état teg ci seen loxo loo xam ne ni leer na leen ne lii war ngeen ci mën sukkandiku pour def pour jógaat defaat li ngeen daan def. waaw bu xew maam en tout bu mas bi ñëwee promoteur yëpp benn lañ def ku nekk jël sa alal boo am def ko si dimbali ko ministre bi. état def na benn geste benn paax mooy jënd ku nekk deux millions jox la waaw loolu geste noble la mais boobu ba léegi déggaatuñ dara waaw. est-ce que doy na ci yéen ñëpp wala quest moom laa la wax xam dafa am geste noble. waaw geste boobu noble la mais ñun lu ñu dépensé pour na loolu waaw xam nga nit ko defal lu baax su nekk as gox dëgg sant ko. moo tax ma ne geste noble la quoi. yow sa bit sa ci soq ak gàmmu gi ñu lay euh, ñaata la woon. non na. ñaata million. non na moom. Mm-hmm. mais kon 2 millions yi la jox kon daal satisfaire wu ca dara à part geste noble mais geste noble la loolu lañ mën tënk. mais ñoom war nañ gën a mën jàppale promoteur yi. ndax xam nga ay ndaw lan jël suñu alal def ko si bu natt bi ñëwee nangu ko kon. lu daaw ba daaw tey ñoom war nañu mën pousser yokkuñu fit mais am na loo xam ne tey suñ koy gis si ñoom sa xel day xaw a tey. comme lu mel na waaw comme li jot a xew ni ma dégg ne làmb ibbi na te ñu ngi doon ay ndaw waroon tëgg dimanche na ko dal suñ ko nangu ko kon ñoom tey woo ñu tëb tëb làmb ibbi na si noonu waaj. kon yow ni nga dégg ne làmb ubbi na yow loolu nga rafetlu wul. non non non ànduma si quoi. nu bëggoon mu demee. au ñu woo xamoon ne làmb bis temps lay ibbeeku ndax man dama ko dénk si ay junior loolu du respect ko wax dañ jël suñu alal def ko si toog di leen déglu tey saisonnière si ñoom béy bi làmb tey nekk nekkoon promoteur mais ñoom duñ fa toog kon promoteur ñoo toog fa promoteur ñoo tax ñuy fayeeku kon lu lu dara ba dara tey su ñu bay ibil làmb wala ñu woo promoteur bu nekk ñu woo la. wax la dañ bëgg làmb ibbeeku bis temps ndax loolu mooy respect waaw. est-ce que noonu la daan doxee wala daan woon. man suma gis-gis laay wax ak su ak lu ma gëm man suma gis-gis ak lu ma gëm ndax tey bu ndogal bu ñëwee yaa may dégg ñoom ñoom dañ ma woo expliqué ma man nangu ànd ak ñoom kon tey suñ demee bay jàppaat bis au moins woon nañ ma woo woo woo tam ñeneen ñi ndax loolu mooy respect Babs. man lu ma gëm laay wax lu ma gëm du ma ko wax ndax tey suma alal man maa ko ñëwee suma bopp amul kenn ku ma si jàppale kay léegi tey soo comme loolu nga wax dañ leen waroon woo wax leen léegi defuñu ko ne nañ saison bi ubbi na pour le premier mars lay commencé incha allah rabbi est-ce que tey Thiam Production pare na pour tëgg ay làmbam ci situation bi nga xam ne moom la ñu wax ne ci la ñuy tëggee làmb ji muy wékku la parce que loolu déjà lu ñu tënk la ba pare. waaw avant boobu sax damay nuyu suñu papa Gasson. Gasson du ko ñaanal na réussite totale ndax loolu mooy yëfu nit quoi mais man caam xalaatuma sax tëgg si ay huit kilos xalaatuma ko ndax suma soq ak gàmmu gi jarut xalaatuma ko si kaw état bi jàppale ñu suba mun naa def huit kilos mais état état ki ñu bi jàppale wu ma non xalaatuma ko xalaatuma ko. man ñu promoteur yi wax démb di seet seetaan naa leen ñu wax man man loolu laa wax ok. maanaam ñi taxaw ne ñoom du ñu tëgg lu dul ne état daf leen a jàppale wala ay solution am yow ci loolu nga ànd yow. parce que loolu mooy dëgg ñu ñëpp benn lan man ñu ñoom démb lu ñu wax man loolu ànd naa si tey ndax suñu xaalis dañ ko ñafe mënoon nañ ko jël dugal ko feneen wala mënoon nañ ko jël def si leneen mais dañ ko jëlaat defaat ko si biir dëkk bi. pour jàppale jeunesse su dëkk bi kon ñun ñëpp état bi dafa wax xam ne waa làmb ay njabootam lan man loolu laa gëm Babs. mais pourtant am na ñu ne dañuy tëgg parce que à part gas waxatuñ ko ndax moom leer na mais ku mel ni euh, euh, kële nu mu tuddati Habib Lecran sëñ Modou ñaa gis nañ tey jàpp na date pour le 28 mars nar a ubbi sax làmb ji ci diggante Ronaldo ak Diegane loolu tam loo loo leen di wax. waaw mais yàlla na yàlla jàppale yàlla nañu réussir ñoom ñëpp. mais man Thiam xalaatuma lool waaw man dama leen ñaanal ñu réussir man sama sama laaf yi yàqamtuwuma ko bis bi ñu ajee làmb bi temps normal man ma ñëkk a tëgg mais comme ay huit kilos nii xalaatuma ko foog état jàpp jàppale ñu jàppale promoteur yëpp xam nga ñu tëgg ko mais sans loolu bas man xalaatuma loolu. biñ ne defar budget pour promoteur yi jox ko état ñu xool lu ñu leen di jàppale yow defaroon nga budget yow jox état. waaw budget boobu defar naa ko. jox suñu président Dieye maa ngi koy nuyu sax nuyu Abdoulahat xam nga ñoom Gibson ñoom Bamba waaw. loolu après fu mu mujjee. mais ba tey déggaatuma si lenn waaw. Ah. yi daal ngeen ko bindee joxe ko ngeen ci dégg dara. waaw di boobu lay déggaatuma si lenn. loxo ministre la teg woon wala loxo président de la république wala loxo kan wala loxo CNC. waaw foofu man bu ñu joxee man Dieye laa ko jox. saf la Abdoulahat laa jox mu jox ko Dieye ah mais di boobu lay déggaatu si lenn. mais dañu seet leen tamit yow si biir euh, lool bi ma amee si biir corona bi après gis nañ defe naa ci am production taxawal na fi ay combat mën nañ ci lim caatu yaraax Zal Bawol ak ban combat waat. double moteur coins double moteur coins voilà. ma xamal la maam ñu siy wax waa tey ñu si kii tey soo timé soo soo limee trois promoteurs xam nga man dama siy tegu ndax ay combat wu jànk laa tëgg te bon si gàttal lépp lépp man damay bëgg ni état. su amee ay ndaw nekk si dëkkam nangoo liggéey pour man état da leen war teg loxo jàppale leen ndax tey ëllëg ñu ñooy màgg teel réew mi kon lépp ak dafa war rafet quoi. yow daal doxalin bi nga gis nii daal janga jàpp ne daal tegewut ci yoon daal rafetluwuloo ko daal. non su ma waxee lool du ñu leneen la dama ne état si boppam dañu war a jàppale promoteur yi def huit kilos gars yi doxal. mais tey sans sans état jàppale leen mais huis clos bas loolu day metti lool. yow depuis boobu ba tey comme ni mu demee nii huis clos est-ce que Baba mu ngi jéem a def benn démarche pour sponsor pour nangam loo xam ne xay na mën na ñëw soutenir ko ci li mu jëm. yaa wax dëgg yàlla non non commencé wuñ ko quoi. combat yi nga tëgg double moteur Quench. ah <laughs> soq gàmmu géey zaal bawal caatu yaraax Jacob Baldé Mbagnick Kaïré Mamor ak xale ba dëkk fa nga xam ne moom mooy fële Paul bu daaru yooyu combat yow nga yaakaar combat yu neexee noonu doo ko war na am sponsor waaw instant ñoo jëm mais instant moom dew sotteegul waaw ñoo jëm mais dew sotteegul xam comme lu ma la ñun ay ndaw lan bëgg nañ daal gars yi jàpp nañ ñu waaw ndax am nañ gëm-gëm bi am nañ fit bi nangu nañ liggéey tamit tey daal baaba kon tey yow fi mu nekk nii est-ce que am nga yaakaar ci làmb ji la res fi fi ñu jëm ni ci kanam. si ban côté noonu. maanaam ci côté yaakaaru tey dem ba làmb ji rafet naa normal ngeen di tëgg normal est-ce am nga ci yaakaar. si am naa ngëm-ngëm boobu waaw ngëm-ngëm am naa moo tax yàqutuma sama lenn dama lay wax mbër ñoom may dégg su ma état bi jàppale mën nañ def huit kilos suñu état bi jàppaliwu dañuy xaar ba di làmb nekkaat suñu temps normal ñu ñu continuer suñu bis. kon daal say mbër moom na leen leer muy Double Moteur ak Quench ak ñoom ñëpp ku ci ne daal na ko leer na tey su état bi ñëwul appuyer promoteur yi yow moom say mbër nañuy xaar. non muy Double du Quench du euh, Sokh Gamou Gueye ñoom Mañi ñoom Jogab su ma état bi jàppalewul du ma tëgg làmb bi kilo xalaatuma ko. ndax suma life comme nu ma la commencement dama ko ñafe amuma xaas bi maa ngi dégg sax xama Fallou Fallou Fallou comme nu mu waxee amu xaas bi ñu fooyee non si dëgg la soo ko ñëfewul doo xam amuma xaalis bi mooy fooyee Babs waaw suñu état bi jàppee ñu tëgg suñu état bi jàpp duñu tëgg Babs amul leneen maa ngi sëriñ Tuubaa am na solo mais tey tamit am na ñoo xam ne ñu ngi laajte ginnaaw caam lu ci ne parce que boo ne maa amoo sponsor ak combat yi ngay taxawal sénégalais yu bëri dañuy laaj surtout amateuru làmb yi lan moo ne ci ginnaaw caam production. waaw xam waxoon naa la ko yàlla yàlla lañ gëm moom lañu yaakaar te wóolu ko avant ça moo ñu gis ginnaaw man am di Papa Ndaw Aba xam nga ñoom Youssou Thiam sama gars yi à part ñoom amul amul keneen. mais doo tëdd ba la yàgg nga am tiit wala inquiétude yaa xalaat que millions yi ngay investir est-ce que yaa ngi ciy gisaat sa bopp. waaw mais xalaat pour lan. non gis àdduna lépp kàtt la soo amul ngëm-ngëm bàyyi ko man sama life lépp dama koy teg man gañe ba yàlla xam na lool ba business bi may def sax loolu laay jiite chaque jour mais tey exemple euh, Babacar dugg na si perte na man su ma si duggee damay perte mais ana yàlla yow man sama life lépp ngëm la Babs yàlla xam na ko. kon daal yow su ma la déggee daal na ñëpp nekk ci jàmm daal jàmm daal la baaba yi ñaan ci réew mi. mais jàmm mooy lépp Babs man dama xeexul kenn dama xulul kenn man sama xeex mooy sama liggéey dama kon su ko maam ni ku nekk tey soo amee soo amee si kii nu sax yëngu jàpp si yenn daa ay politique nii da lay taadal rek bas billaay relation Baba waa Medina Gueule Tapée waaw man maintenant laa juddoo foofu laa màggee foofu laa defee sama lépp maintenant ñëpp sumay waay lan waaw ñëpp sumay gaañ lan te et lu ma am dem foofu laa koy dugalaat ak Serigne Touba mm-hmm. Babs ñu may liggéeyandoo si maintenant mën naa ay deux cent personnes di dem yàlla xam na ko tey xam ñoo xam su ma leen joxe di di leen dimbal personnes ay trente personnes yàlla xam na lool man lu ma am maintenant laa ko bokkoon ak Serigne Touba na nii. ana madame. madame moom fii xam nga bu baax. xam nga jàmbaar la xale la te am na ngëm-ngëm quoi waaw fii bu ñuy àndee ba léegi macha allah et puis bac plus islam ba may toog du yàlla xam na ko dama koy ñaanal jàmm du ko ñaanal yàlla may ko tout tànk waaw allahumma amin nooy tàggoo ñi lay ci Equivox ak man sooy xool ñoom ñoom daal waa ñoom kii nu sax ak Leewtoo xalaa ñoom ñett laay seetaan waaw yàlla xam na ko saa yi ma nekkee guddi sama ñoom lay seetaan dina ñaanal jàmm surtout maanaam Lamine xale la xam nga du ko ñaanal jàmm yàlla dafa ko jàmm wax gars yi tam nañ ko bàyyi mu liggéey ak xelam xam nga waaw duñ ko manipuler ndax moom liggéeyam lay def tey day xool maam ni mission bi gën a doxee mu def ko mais yenn gars yi nag amuñu xel boobu. pour ñoom Lamine benn genre ni la déedéet jantal la góor yàlla la ak Cheikh nangoo Diop waaw kon mu bëgg gars may ko jàmm quoi Babs yow tamit dama sant di la gërëm ndax xam nga fu ma la wu wuyu si ma bon et puis chaque jour may jox xalaat waaw waaw ñaan yàlla jàmm sa waa ji ma waaw. kon kon kon gaa yi affaire baa ngi noonu ah ak ki nga xam ne nii moom mooy Baba Diaw mais nag nit ku ne am nga ñooy liggéeyal am dee ngi nii defe naa ne am di eh, lu gàtt rek moom defe naa sa diggante ak Baba moom wala seen diggante sax fi mu nekk nii mooy loolu quoi. salaamaaleykum Babacar maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu staffu Thiam production bi yëpp di jiital nuyoo bi baaba xam nga gars yi maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay waaw. baaba defe naa ne liggéey bi ni mu taxawee nii rek loo ciy sànni. waaw mooy li baaba wax rek li baaba wax moom fu mu toll nii luñ ci dolli amaana mooy loolu quoi wax na lépp waaw affaire bi moom mooy lu mu wax rek na état gersu jeunesse bi xam nga xale bu ndaw bu jël say centaine de million investir ko dugal ko say morom dugalu ko ci ay pas dugalu ci ay kenn ci ay moromam la ko dugal mooy mbër yi kon war nañ ko mën a jàppale gestu ko gestu promoteur yëpp aussi tamit. waaw ni ñu bëggee tëggee làmba ji ñun duñ duñ ko tëgg caaxaanuñu ko sax barki Seydina Mohamed amul accompagnant état duñ ko mës a tëgg billaahi wallaahi waaw ndax ñun ñoo ànd di liggéey te boobu léegi mooy lu mu wax rek ah ay xale lañ ay jeunes lañ amuñu leen lu ñuy yàq yàqamti ah waaye bës bu ñu nouvelle ordre ñu war ko tëgg ci temps normal ñu gérer ñu war a gérer waaw mais si la foo moom li baaba wax moom ñun loolu la ñuy défend ah. waaye point waaw sëñ Babacar waaw sëñ maa ngi lay siyaar di la siyaar di la jox seen wàccuwaay di leen siyaar yi ñëpp di siyaar sama gaa yëpp su ma limee damay juum euh, li may wax daal bariwul benn kàddu la ñu ñëpp benn lañu benn kàddu mooy am li baaba wax li am di wax lépp benn la di ñaan yàlla rek euh, jàmm sax Sénégal xam nga yàlla doon ñu sutura yokk mën gi te boo xoolee dëkk bi jaxasoo na jaxasoo boo xam ne jamono ñu toll nii foog état teg loxo nit ñi pour mu dem parce que lépp taxaw na làmb pour Sénégal jëm kanam déjà yaa ngi wàññi chômage moom li mu wax ni sànq dëgg la du question que ne làmb ji kese la mais am na ñeneen ñoo xam ne mi ngi liggéey ak ñoom mi ngi wàññi chômage yu bari di dimbali ñu bari mais loolu lépp xaaru ci kenn xam nga loolu ñun la ci waxal ñu liggéenti ko mu sotti waaw man daal aw ma daal lu mu ci wax lu bari ñoom li ñu waroon wax yi wax nañ ko waaw jërëjëf jërëjëf. Aba. <laughs> Mabs ñu ngi lay siyaar di la jox sa wàccuwaay xam nga di siyaar Lamine uh-huh. xam nga di leen bëggee quoi uh-huh. Uh-huh. waaw yow dégg nga li gars yi wax ah daal yéen bu état accompagné wul moom fasu ngeen ne génn seen xaalis di tëgg waaw mais Babacar yow boo xoolee loolu moom mooy moom moo jaadu loolu moo jaadu quoi parce que nga nekk ndaw xam nga xoolal combat taxawal yow xoolal combat yi mu taxawal rek kon kooku war na mun a am jàppale comprendre nga gouvernement bi nag xam nga nañ jàppale gars yi ñii seen morning mënoon nañ ko jël dem feneen wala ñu yokk wala ñu dem tukki xam nga de mën mënoon nañ ci def leneen yeneen liggéey mënoon na ci am mais xam ngay jàppale say moroomu jeune xam nga te mbër yi dañ sonn nañ jéem a xool nu ñu defee huit kilos ñoom ñu teg ci loxoo mbëri yi bëree xam nga affaire yi metti na nag de te man mbër yi barki Serigne Touba Mbacke man mbër laa gën a yërëm parce que xam nga ay booy lañ am nañ doole xam nga toll nañ nu leen neex quoi na état bàyyi xel loolu tamit quoi waaw jaajëf Babs bëggee naa la jaajëf ah. kon nag gars yi noonu la demee woon ah, ni ngeen ko xamee rek euh, Equivox la woon Lutte TV Lamine Babacar Yaggamar ak fii nga xam ne moom mooy métropole ci Gueule Tapée ak Baba Diaw ak Thiam production yëpp di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon suivre di ñaanal jàmm. Sénégal di ko ñaanal àddina bi di wax ne que rek corona bi yàlla na dem ba situation yëpp di décanté wu ba ñëpp mën a ñëwaat revenir normal ñu mën a organiser lépp dox parce tamit loolu la ñu bëgg rek parce que jàmm moom moo jik borom njaboot.

leen ñu ngi lay ziar borom métropole ah tur la. Maam Ndiaye la. ñun dañuy jaay añ dañuy jaay ndékki ay tacos vic burger yëpp la jaay plat du jour yi yëpp. loolu ñu mën a wax si Baba Diaw. si Baba Diaw ah baax la xam ci moom mu nekk suñu client bu kii bu fidèle mooy loolu. client bu fidèle la moom baax xam nañ ci moom baax moom ak oyof. yow am nga mbër. man waaw. sama mbër Balla Gaye la. Balla loo koy wax si moog Bombardier. moog Bombardier di ko ñaanal yàlla may ko ci ndam lu sedd. dina yomb. xaw ma de yàlla xam daal dama koy ñaanal ndam rek. Ah. Mm, ndam laa koy ñaanal. <laughs> man la Ibrahima. yow yaay lan euh, gérant métropole. waaw euh, métropole fii mi ngi ci Gueule Tapée en face canal bi. grand yi suñuy grand yu baax lañ grand baaba fii lay ñëw ak équipe am bi yëpp fii lay ñëw di añ si xam nga di jënd ndekki tout ñu ngi jàpp daal ci ci combat bi quoi. ñi ngi jàpp ci restaurant bi moo tax tamit maa ngi koy ñaanal sénégalais yëpp ñëw jàpp ci combat bi moom tamit jàpp ci affaire yi yëpp dox incha allah parce jeune la am na ambition xam nga te bu gëm na boppam gëm na réew mi quoi franchement ñu ngi koy ñaanal yàlla jàppale ko dimbali ko ba li mu sumb yëpp suñu borom yombalool ko ko akañ loolu laa xamoon ci moom jërëjëf.